waaw euh, wàññite bi dañuy rafetlu volonté bi nga xam ne état bi am na ko pour soulager ménage yi euh, ci wàññi mburu bi euh, wàññi cherté de la vie mburu nag bu fekkee dafa nekk lu ñuy wax denrée sociale bokk na ci li nga xam ne nii moom la Sénégal yi gën a jëfandikoo kon bu ñu koy wàññee dañu yaakaar ni dina soulager une partie de la population pour ñu mun di am mburu bu baax ba pare à un prix accessible kon dinañu rafetlu loolu Mm-hmm. nee na coow nag parce que wolof dafa ne ku lakk mburu tuddub dëkk mm-hmm. mburu ci boppam moo am faama boobu ba nga xam ne nii eh, bayram la eh, dina indi coow eh, li ma ci jaax rek mooy dañ ko xaw a précipité moo tax dañ ko xaw a yàkkamte moo tax mu indi coow bi parce que ñun ci mburu depuis ñu ngi ci mburu ñun taxawal association regroupement de boulangers du Sénégal avec plus de 800 membres Euh, mais à l'unanimité suñu membre yëpp affaire bi mbetteel la si ñoom mhm. parce que dafa am fu ñu toll woon ci secteur boulangerie doon liggéey année yi nu passé xam ngeen ne amoon na ay agitation ci mburu mhm. mais liggéeyoon nañ ba mu am accalmie tuuti ci dernière année bii mhm. déggu leen na fu boulangerie yëngutoo loolu nag liggéey bu ñu defoon moo ko waral euh, dem nañ ba am suñ suñu décret présidentiel dem nañ ba am li ñuy wax normalisation li ngay gis mooy normes yi nga xam ne moo lañu ñu war a liggéeyee mburu bi. Mhm. Euh, ñu jëman ci nag beneen étape muy modernisation du secteur de la boulangerie fexe ba changer xar kanamu boulangerie ba mu nekk métier bu attrayant. Mhm. mais fi mu nekk dañuy bëgg a delloo ginnaaw loolu nag moo moo metti boulanger yi parce que déjà ñu ngi woon en difficulté parce que dernier homologation ak tey tout ce qui compose le pain. Mhm. prix yi dañu dem du simple presque au double. dafa yokk dafa yokk ci yéen seen côté ci suñu côté. d'accord ñun homologué nañ def structure du prix du pain. Mhm. Euh, liggéey ko ak waa ministère du commerce suñu ministère de tutelle ba àgg ci un prix consensuel la sax prix boobu c'était pas le prix réel mais c'est un c'est un consensus. mooy ban mooy 175 bi. d'accord parce que en réalité le pain devait coûter un gramme un franc cest à di baguette de 200 grammes. à 200 francs loolu la ñu waroon jaay mais prix consensuel moo taxam ñu jël ko ñun bàyyi suñu cinq suñu cinq presque état ñëw def ci apport am subventionné ko dindi taxes yi ba état population Sénégal mën a am baguette de référence bi cent 190 grammes lay pesé tey jii mais 200 grammes la doon pesé à Dakar à 175 francs boobu dama doon wax naan ku lekk mburu rek war nga ni état jaajëf parce que 50 francs état ngi ci ak participation boulanger yi dara changé wu fi nag lu dul que li ñuy composé mburu bi dafa yokku levure bi dafa yokku c'est passé de 9000 à 15000 muy levure fraîche bi. améliorant bi est passé de 15000 de 19000 à 28000. Mm-hmm. sel dafa yokku de 1000 francs le sac sel iodé à 1500. Mm-hmm. papier emballage dafa yokk muy bi papier alimentaire de cent 750 à 1200. Mm-hmm. Euh, glace bi ñuy utiliser. le sac. de 1000 francs à 1500 terewul boulangerie ak seen patriotisme ñu continuer liggéey ci loolu. kon fi su si nii. prix yi moom ngeen di liggéey ñun li ñu waroon laaj tey jii. Mhm. dañu nekkoon ci li ñuy wax état de grâce mais li ñu waroon laaj mooy augmentation du prix du pain <laughs> loolu la ñu waroon laaj parce que nous sommes en difficulté. d'accord dinañ ñëwaat ci difficulté.